korite gi rendre grâce à Dieu d'abord et dire mon immense plaisir d'avoir pu sacrifier à cette tradition avec les Sénégalais et dire que par la grâce de Dieu nous avons pu commencer le jeûne. Faire une campagne électorale paisible au Sénégal, faire une élection calme et sereine au Sénégal et choisir dans la paix le président de la République. Ce qui nous a valu le respect et l'admiration du monde entier. Rendre grâce à Dieu dans ce mois béni de Ramadan. qui est un mois de communion, de dévotion multipliée, mais surtout de dévotion acceptée et bénie. prier que toutes ces dévotions-là soient la garantie d'un Sénégal de paix, d'un Sénégal d'unité, d'un Sénégal de cohésion sociale. Dire le pardon que j'accorde à tout le monde et demander de chacun et de chacune le pardon. Et demander à Dieu, subhanahu wa ta'ala, de nous pardonner tous et d'accepter notre jeûne et nos dévotions durant ce mois béni. Le ramadan est un mois de convivialité et de solidarité. L'imam Ratib l'a rappelé dans son serment, l'importance de la solidarité, l'importance de la générosité entre concitoyens et l'importance de la consolidation de notre précieux vivre ensemble à travers cette solidarité agissante entre musulmans, mais aussi entre musulmans et catholiques, et plus globalement entre musulmans et tous ceux qui ont une autre confession. Nous devons dire que le Sénégal est un pays qui est un et indivisible. Il est de notre responsabilité collective et de notre responsabilité individuelle d'entretenir ce vivre ensemble qui fait la stabilité de notre pays que le monde entier nous envie. Le Sénégal est un pays de grands hommes, de grands hommes de Dieu, de grands hommes politiques. C'est un héritage sacré et c'est un héritage précieux que nous avons le devoir de perpétuer. Je voudrais, avant de terminer, rendre un hommage appuyé à tous ceux qui nous valent la satisfaction des titres que nos enfants remportent à l'échelle internationale dans les concours de récital de Coran. Je veux citer tous les maîtres coraniques, quelles que soient les conditions dans lesquelles ils enseignent le Coran. Je veux citer tous ces imams ratib, mais je veux surtout citer les grands hommes de Dieu, à savoir les khalifs généraux. Quelle que soit la confrérie, il reste qu'ils sont tous khalifs dans la confrérie musulmane et plus globalement dans la religion en voulant intégrer le clergé. Je voudrais saluer et rendre grâce à Dieu de leurs prière bénies, qui sont le socle, le pilier fondamental qui tient ce pays-là et qui nous permet, quelles que soient les péripéties, quelles que soient les, euh, les, les, les, vicissitudes que nous traversons, et quel que soit le point auquel le pays a été secoué, de rester debout et de finir par fasciner le monde entier. Voilà ce que je voudrais transmettre comme mot en priant pour eux qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur donne une longue vie. une santé de fer et continue à les laisser nous guider, nu soutenir et nous tenir à travers leurs prières bénies. Assalamu alaikum wa am na solo gannaaw kon euh, ba nga euh, jullee euh, ci grande mosquée de Dakar ban message nga bëgg yëkkati ci wàll wi. asalaamaaleykum wa rahmatullah balaa may joxe message bi rek bëggoon nuyu. imam ratib bu grande mosquée bu Dakar di nuyu tamit grand sëriñ bu dakaar di nuyu ñëpp ñi nga xamante ne ay góor wala jigéen ñëw nañu jullisee fii ci grande mosquée. bu ma nuyoo imam grande mosquée de dakaar rek mel na ni nuyu naa imam yëpp ak fu ñu mënti nekk nuyu naa kilifa diine yëpp ak fu ñu mënti nekk. mel na ni tamit bu ma nuyoo Sénégalais yi ak sénégalaises yi fi ñëw jullisi mel na ni nuyu naa sénégalais yépp jóg tey dem julli ji ak fu ñu mën di jullee ci biir senegal ak ci biir àdduna bi di sant bu baax a baax a baax gannaaw bum ñu mayee ñu jóge ci xat-xatu élection yoo xam ne xëy na ñun ñëpp ci njëlbeen tiitoo nañu ci waaye ñu dugg ko ci weeru koor génn ko ci weeru koor tamit di ci sant yàlla bu baax ci ñum lu mayee ñun ñëpp senegal ndax Sénégal moo ko moom ndam li nga xamante ne donte xëy na am na ñu amoon tiis ak njàqare yàlla may nañu ba ñu génn ci jàmm am élection boo xam ne àdduna yépp jaare na fa gën a naw senegal loolu nag lu ñu ko may mooy ñaan yi nga xamante ne nit ñu baax ñi fi jiitu ñu ngi ko fiy ñaan guddeeg bëccëg ñaan yi nga xamante ne ñi fi nekk tey di naafila di yokk seen ñaan rawatina ci weeru koor gi di zikr di jàng ay xasida wala ñuy wasifa wala ñuy dem ci jàngo yi wala ci yeneen anam di ñaanal réew mi di ñaanal waa réew mi ñu koy sante yàlla bu baax a baax a baax nag gannaaw bi xat-xat yooyu tombeek weer wi nga xamante ne weer la boo xamante ne yàlla def ci ful lépp loo xamante ne ñaan la te gaaw nangu ko lool di ñaanal ñi nga xamante ne nag ñooñu ñooñu ma tudd noonu muy kilifa diine yi kilifa aada yi muy sénégalaises yeeg sénégalais yépp ak fépp fuñ ñu di nekk di ñaanal réew mi di jóg guddeeg bëccëg suba ngoon di ko def di leen sant ci ndax ñoom ñooy li téye réew mi ba nu ñuy jaaxle jaaxle jaaxle ñaan yooyu rek mooy li nga xamante ne moom la ñuy mën a expliquer luy tax senegal du tabbi ci guuta waaye nag looloo tax tamit Sénégal ay nit ñu màgg ay nit ñu baax yàgg fee dund yàlla wàcce leen fi muy xéewal ci réew mi te ba fu ñu toll nii ñu nekk fi wéy di ñaanal réew mi ba réew mi alhamdulilahi rabil alamin am nañu loo xamante ne aduna yëpp moo ñu koy ñeewant moo ñu koy moo ñu ci ñee bëggoon ko am te xëy na ñëpp amuñu ko bëggoon tamit balaa may jóge ci kilifa diine kilifa aada yi ak ñëpp ñi nga xamante ne ñooy def loolu sant bu baax a baax a baax nitu daare yi sant bu baax imam ratib yi ndax su ma tuddee imam bu grande mosquée de dakaar mel na ne tudd naa bu ratibu mosquée jàkk yëpp ci biir Sénégal ak juma yëpp ci biir Sénégal waaye dafa am loo xam ne ndam la ci ñun que doomu Sénégal yi yàgg di jóge fii dem jongante ji tarig alxuraan indi ay raaya te loolu ñoom lañ koy sante quelque soit nag jafe-jafe yi nga xamante ne ñu ngi koy am ci bu ñu dee jàngale alxuraan di ko def ci ay nit di defar nit ñi waaye di def ci ñoom tamit xam-xam weeru koor nag da di weer goo xamante ne weerug cant la weerug jàppalante la weerug suturalante la te sénégalais yàgg nañ ci jàppalante yàgg nañ ci suturalante te jàppalante googu la imaam doon wax sànq ci xutbaam ne mooy li nga xamante ne moom la diine woote te xëy na sax moo tax diine bokk na li tax diine jóg ndax jàppalante boobu mooy tax ku am jafe-jafe doo ko yëgee ni noo ko war a yëgee ndax xam nga ne am na koo xamante ne mën nga weeru ci moom ba mu sedd ci yow wala mu oyof ci yow di ñaan di ñaanal Sénégal di ñaan Sénégalais yi tamit ñu ñaanal Sénégal continuer di ñaanal Sénégal ndax fii la ñu am amuñu feneen bu mettee fii la bu neexee fii la li ñuy sàkk muy suñu njaboot fii lañ koy sàkki niñ ko jàppee nag ay nit teg ko ci suñu loxo ci jàmm noonu lañu war a jëlee tamit te waxuma président de la république rek waaye sénégalais yi fiy dund yëpp dañoo war a sénégalais ñi ñiy ñëw ëllëg ñu liggéey lu tax bu ñu ñëwee ñu xam ne Sénégal gii génération ba génération ku ci nekk def nga ci sa wàll ci jàmm ak jàmmal ba joxe ko ci leng joxe loxo yi ci joxe ko ci yeneen loxo ci jàmm ñooñu continue tamit di jàmm di di di di dox jàmm di wax jàmm di def jàmm pour Sénégal yi fi nekk yëpp mën a am jàmm kon maa ngi baalu ñëpp ak ñi ma xam ak ñi ma xamul ñi ma tooñ ak ñi ma tooñul sax di baal tamit di baalu tamit ñëpp ñi nga xamante ne tooñ naa leen ci li ma yég ak ci li ma yégul di baalu sax ñoo xamante ne tooñuguma leen te di ñaan yàlla mu boole ñun ñëpp baal asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu kon euh, loolu doon kàddu yi nga xam ne mi ngi tukkee si njiitu réew mi di président Bassirou Diomaye Diakhar Faye mi ngi nuyoo nag fi mu nekk nii